jërëjëf mbokk internet yu Dakar ñu leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen ñu toppee ci émission mag bi di Dakar Buzz social euh, Dakar Buzz social tey ñëwaat ba fii ci Sagnaniam Sagnaniam mu ngi nekk ci benn village da ngay ñëw ba euh, romb Kaolack euh, ba mel ni ko jëm ñooro jàdd à xaw na sori nag tey mais li may wax rek Dakar Buzz sociale bëgg na moom fu doomu aadama nekk rek te yitte woonu rek buñ ko yàlla mën loo loowee rek ñu fekk la fa. partage ak yow li ngay dund pour sénégalais mën laa jàppale di jéglu tam ci baat bu xaw a diis bi damaa xaw a feebar tooy mais li may wax rek mënunoo tëdd parce que li nekk suñu ginnaaw moo bari te ñi yaakaar bari ñoo xam ne kenn ku ne bëgg ñu tas sa yaakaar ba tax na donte sax dañuy soox dinañ jóg pour jéem a satisfaire minimum ñi nga xam ne ñooñu yaakaar euh, te di nu xaar moo waral baat bi changé nii tooy la goo xam ne ñu ngi koy dundaale. da ñaan ngeen ñaanoon yàlla gën noonu may wér ndax bu nu wéree li nu bëgg a def mën nañ koo def ci kàttanu yàlla sa ñaaneem nag xaw naa sori li nu fi indi nag moom mooy cas boo xam ne dooy na waar mu yàgg ma woon nag depuis ci avant koor gi mais li ma waxoon rek ñu ngi woon ci affaire aide alimentaire yi euh, di gërëm ñëpp ñu doon jàppale ci mois de weeru koor bi doon nu yónnee seen xéewal ñu ko doon def ay ceeb ak diwlin di ko jox ñu néew doole gis nañ ni ngeen ñu ci jàppalee Dakar Buzz gis nañ ni ngeen ci soutenir Dakar Buzz ndax bu ko Dakar Buzz mënee bonne volonté yi ñoo mën loolu ba mën koo def gis nañ tam bi koor gi jeex waa yàllaay kase tam ñoom day binte ak ñun bokkal liggéey bi tam joxoon ay enveloppe ñu ko doon séddale tam néew doole yi kenn ku nañ joxoon la enveloppe vingt cinq mille loolu lépp muy jàppale ñi nga xam ne ñoo néew doole te ñi dëkk bi ba tax na daal ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ndax ku santul nit du sant yàlla gis nañ ni ngeen doolelee Dakar Buzz ci lépp wax naa ko saa bu may dugal kaa day mais bu duggee rek bu ngeen réagiré sama xel dal di gërëm encore une fois tam bon volonté yëpp tàmbalee ko ci suma rakk Mouhamed Amar di ko nuyu di ñaan yàlla defal ko jàmm defal ko sutura di nuyu suma frère Girif Sougou moom tam yàlla defal ko jàmm defal ko sutura di nuyu groupe bi dakaar bu social en taxaw ñu wérati ñoom seen Jili Ndiaye sëñ Mamoor sëñ Xaadim Sarr soxna su borom daaru ak ñoom ñëpp Baye Saliou di nuyu ah, waa Dakar bu social bu Amérique ñoom soxna Seyni bu tam di liggéey liggéey bu am solo soxna woo def te yàlla tax nday ab solo bari na macha allah. di nuyu ñëpp di nuyu ah, ki nga xam ne mooy Fallou Niang nekk ba Napoli ak seen frère tafaa di nuyu bonne volonté yëpp Salimata di ñaanal ñëpp jàmm di wax koor gi ñu génn nuñ ci jaamu yàlla yàlla ko yàlla nangu te yàlla barkeel ko te yëkkati malade yëpp comme ñi ngi sañaan dem nag euh, après Kaolack la da ngay jóge ba jóge Dakar ñëw ba Kaolack sori na tàng na mais sant yàlla te ñaan liñ fi dox si yàlla ci yàlla def barke ban man fee ñëwaat jilaat malaat bi ci anam yoo xam ne moom sax moo ni teeru mais sonn na te mi ci ay métit xam ne boo ko gisee da nga yaakaar ni mag la te 27 ans la am kon nga xam ne feebar ko jàpp ak néew doole ak ñàkk gu métti xam ne tey moo tàbbi ci kër gi ba tax tey ñu ñëw fi Sanganéem ngir ñaana ko ndimbal di ci xaar seen euh, seen réaction ngeen mën koo jàppale mu mën a faju ndax gëj na hôpital te manque mooy moo ko tere dem hôpital moo ko ak nga xam tam jege ñaari ci malade bi la ñu waxtaan xool nu mën a def laaj ko lii ko dal malade bi kañ la ak nan la soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fadel. noo tudd. awa lan nga ci malade bi. bi sama cousine la. nu mu tudd moom. awa awa Sall. Euh, lii ko dal kañ la. yàgg na de bientôt ma am un an. Hmm. Mhm. koy moom ñaataat la am. 27 ans. du mag sax xale la. xale la waaw 27 ans rek la am. koy dal yan siñ la def ci moom. ween bi dafa jékki-jékki rek di néewi ñu yaakaar ne day néewi nii rek ñu commencé di faj faju olof léegi bi fajee olof. muy gën a développé daal ween bi di gën a néewi ñu yóbbu ko hôpital yóbboon nañ ko hôpital nag ba ñu opéré woon ween bi sax mais dafa ñëwaat bu mu ñëwaatee la gën a métti mu ñëwaatee léegi ça fait mois mais demul hôpital ndax amul luñ ko fajee looloo tax ñu woo di ay bonne volonté rek ñu ñëw jàppale ñu si malaat bi ñu mun koo faj. sànq yaa ngi naan ma même cent franc yu jëndee paracétamol amul. amuñ amul dara dara fii lay tëdd. lekkul naanul fajuwul deful dara métit bi daal di gën a yokk amul saxlu koy calmer tëdd rek toog di xaar yàlla la def. Ah, bi mu koy dal ah, yan signe la defoon dafa jékki-jékki rek ñëw wala lan dafa jékki-jékki rek néewi ñu yaakaar ne comme ay genre kii la rek ñu faj ko faju olof waaw mais faju olof bi demul ñu yóbbu ko hôpital opéré ko bu ñu ko opéré ba pare wenn bi dafa ñëwaat gën a jël volume gën koo sonal. bu njëkk ba sax da doon débrouillé wu di sangu boppam di dem di ñëw mais ça fait six mois ngi nii mu ngi tëdd benn côté lay tëdde wala mu jaaxaan 24 heures sur 24 day tëdd mënul toog mënul dara wax sa làmmiñ bi damm na mënatul wax. te 27 ans rek la am. te 27 ans rek amul borom kër. amul borom kër déedéet. nga ni 6 mois demul hôpital ndax ñàkk lu mu fa yóbbu. 6 ngi nii demul hôpital. lan ngay wax bonne volonté lay si taan pour nu mën la cee dimbali nag xam naa ne seen xaw naa jeex. te jaaxle ngeen moment yi ngeen di woote carte bleue ngeen di wax volonté yi. jaaxle rek moo ñu tax a dem du ñaan dimbal ndax tey jii ku soñoon ku nekk doo ñaan kenn ku soñoon ku nekk doo tàllal sa loxo mais yàlla moom daa yemalewul comme yàlla yemalewul ñu ngi tàllal loxo le bonne volonté ñu ñaan leen rek ñu jàppale ñu suñu malade bi ñu faj ko waaw. nee meew rek la mën a naan meew rek la mën a naan ak soow loolu kese. nan ngeen di jànkoonteeg malade bi nekk ak ku feebar doole bëriwul nga koy xool mënoo amoo ci benn pexe même cent franc yoo ko jëndalee paracétamol doo ko am aussi. soon sonn rek ak jaaxle xol bu jeex kese moom kese ngay dëkkee sonn nga jaaxle nga sa jeex na ndax dara naqariwul nga tiim koo xamante ne mënoo loo ci moom mënoo ci moom dara amoo dara loo ko jox soow bi sax muy loolu day critique yaayam la nekkal te yaayam amul doole yaayam amul dara nit ñi ñoo koy jàppale lu mu jox ko mu lekk. mu ngi nii day tàng jër ventilo bu mu taal sa amuk day toog di ko ëpp guddi ba bër set sonn na ci torop léegi daal lu si waaye mun rek mu jàppale ñu faj ko ndax sonn na. jërëjëf sonn na lu ci waay mën mu jàppale ko ñu faj ko. mi ngi tëdd 27 ans la hmm, feebar nag fa feebar yam fa la nekk hmm, boo ko xoolee wax naa ko léegi da nga koy nuru mag te xale la manque moyen li may wax chaque jour rek ñi feebar dëgg ñu ngi ci biir kër yi ñi feebar dëgg nekkuñu hôpital naam hôpital am na ñu fa nekk ñu tëdd ñu sonn waaye ñi feebar dëgg ñu ci biir kër yi ndax amu na yu ñu demee hôpital six mois mu tëdd amul sax cent franc yu mu jëndee paracétamol six mois yoo xam ne demul hôpital six mois yoo xam ne ci métit lay fanaan ci métit lay xëy ci lay yendu six mois yoo xam ne du nelaw six mois yoo xam ne ci ay jafe-jafe saa boo xëy muy gën di augmenter. saa boo xëyee muy gën di metti parce que ñii la war a jàppale amuñu moyen soo xëyee lekk ak naan da të boo ci boole nag yor malaat day gën a metti jafe-jafe yi jafe-jafe yi ak malaat bi. ah xanaa metti rek fii moom ku fi ñëw sax xam nga ne fii moom mooy loolu yàlla rek a fi nekk dara newoo fi waaye sant yàlla sant yàlla bu bari ndax na waar daal mënoo wax lépp waaye yàlla baax na waaw yàlla saafara rek. incha yàlla yàlla saafara ñu ngi ciy tàllal loxo bépp bonne volonté buñ ci yaakaar ne ah, mës na dugal kaa nga jàpp ci ñu ngi la ci tàllal loxo ngeen dimbali malaat bi nu mu tudd awa yàlla mën koo dimbali mu jóg ndax euh, sonn na ba fa coono yam mu ngi souffrir te métit ku ne xam ne ne dafa sax ci xol ah, waaye nag yàlla mi nga xam ne moom mooy tege ñu ngi ñaan yàlla mu teggi ko waaye xam nga ne bu amoon ay moyens tey du tëdd ci kër gi toog 6 mois demul hôpital bu amoon ay moyens tey du ci kër gi bu amee cent franc mu jëndee paracétamol sax du ko am six mois yoo xam ne amoo sax benn antidouleur boo mën a naan bu mën a calmer douleur bi amoo ko amul cent franc mu jëndee paracétamol du am lu mu jëndee ay garabu douleur di sant yàlla nag ci forme bi nga xam ne mooy plateforme Dakar Buzz Social may wax toujours rek bonne volonté yi di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ndax cas lu mu métti métti bu ngeen ci réagir rek sunu morom def ci tawfeex di ci tàllal suma frère tam Dora Gueye di nit ku social nit ku baax di la ci tàllal loxo ak lu ci waay mën nga def ko ci te xam ne àdduna dara continué wul euh, yow mu yor ba denc lu jëm suba jàppal ni am na koo xam ne mi ngi ci ay jafe-jafe mi ngi ci ay métit mi ci ay coono mi ci ay ay ay métit yoo xam ne moom rek moo koy yëg ndax àdduna li may wax rek lu la yomb am na ku mu jafe muy lekk muy naan muy wér-gi-yaram nanu jàppale ñi néew doole nanu dimbali ñi tawat ñu gën a bàyyi xel ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi néew doole ndax sañaaneem fii ñu fekk malaat bii tey jii ak leen daw ci ay kilomètres laataa ñuy yegg si da lay kon kii mi ngi ci ay problème ci àll la dëkk ci kër goo xam ne tey boo fi tàbbee xam ne ñàkk ko métti mi ngi fi ah pauvreté mi ngi fi mais nag yàlla dara jeexul ci moom te yàlla mi ngi nekk ku ngeen ñaan mu may leen ñu ngi jàllal loxo yàlla ngeen jàpp ci ñu mën koo yëkkati. yóbbu ko hôpital ba mu mën a faju ndax 27 ans du mag xale la amul jëkkër amul doom xale bu ndaw 27 ans kon dafay nekk ay problème rek feebar amul lu mu moo ko yóbbee tey mu dem ba change changement bu gaaw bi ba ko gis teg ko mag te fekk xale la. moom mii moom ëpp foofu léegi gis nga feebar bee ko def nii moom ëpp foofu sax du taxawaay du yaram lépp moom ko ëpp waaye gis nga boo ko gisee da nga yaakaar ne mag la bu am 100 ans te 27 ans dong la am. 27 ans rek la am di sant yàlla ci plateforme boobu nga xam ne plateforme Dakar Buzz social bi la muy 78 601 11 11 ñu gis ni ngeen fay jàppale malade yi muy loo xam ne mu ngi sedd suñu xol ñu koy joxaat malade yi comme Dakar Buzz li may wax rek euh, ku mu seeti rek dina la xool nu mu la mën a jàppale du bëri mais mu barkeelu ci ndax booy def lu baax yaa cee jiitu ba tax na Dakar Buzz na ko jàppale fukki junni ñu mën koo jël yóbbu ko hôpital ndax kii li wax nekkul malade bu war a ci kër. kii tey euh, amuñu doole nag buñ ko amoon tey ñoo koy yóbbu hospitalisé ko mais lu nu man muy lu néew mu bari dinañ ko jox waa kër gi ñu mën koo jël yóbbu ko hopital xool yan premiers soins yi lañ ci mën a def ak lan lañ ci mën a def ci wàllu analyse ak wàllu euh, xool ween bi parce que douleur yi malaat bi di yëg euh, attanatu ko douleur yi muy yëg yaayam attanatu ko yaayam nag di ko gën a encouragé te xam ne métti na tiim sa doom mu tawat mënoo ci lu bari dafa métti waaye nag yàlla mooy tege te ñu ñaan yàlla tegi ko. waaw di sant yàlla bu baax ci ni ngeen ñu jàppalee ci malade ba tax na Dakar Buzz Social dina ko jàppale fukki junne ñu mën koo jël yóbbu ko hôpital xool lu ñu ko mën a dimbalee def prévention yi mu mën a tàggali ko ko tuuti sax ci métit donte ay antidouleur la yu muy jënd sax mu ngi ko jox mën koo naan métit bi xaw a wàññeeku kon ma jox leen cinquante mille Lamine Dakar Buzz jàppale na ko cinquante mille euh, jëlee ko ci plateforme bi ndax li may wax rek bëggul seeti ma daat wax ak moom bàyyi mu néew mu bari dina ci tàbbal ñaxam di ci gërëmaat bon volonté yi rek nga xam ne ñoo ko jox ñu koy joxaat malade yi képp ku ci dugal sa alal rek ñu ngi lay gërëm di sant ki joxe 1000 ba koy joxe million ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla gën leen a te dëgëral leen te xam ne euh, def lu baax moom sa bopp nga ko defal lu ci waay def yàlla gis na ko te yàlla dina leen fay jafe yi bari na yàgg maa woo Euh, may jéggalu ci loolu tam et puis maladie bari te kenn ku nekk yaakaar ci Dakar Buzz te Dakar Buzz bëggu te kenn kenn ku ne bëgg na minimum mu satisfaire la euh, Dakar Buzz déplacé wu Dakar ba sa ñaami di la ñaanal ndimbal sa cousine bi ba pare jàppale la cinquante mille tey lan ngay wax waa Dakar ah, moom yàgg nañ ci lu baax yéen moom lu baax yàgg ngeen ci man dama leen doon suivre moo tax sax ma am courage di la woo yàgg naa di la woon nag waaye xam naa te la ko yàlla dogal. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ngeen yokk ba yëg ko surtout yow Fadel li ngay def si Sénégal ñëpp gis nañ ko rafetlu nañ sa liggéey yan la yàlla sàmm aar la laax la fu yàq yeegul ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm te xam ne li ngeen def yombul bàyyi seen yitte yëpp ñëw ba fii mënoon naa leen woo ngeen ne ma ah foofu ban dëkk la ngeen di ma expliqué ngeen ne ma noonoo mënuñ dem foofu dafa sori mais bi ma la ko waxee danga ma ne léegi woo ma vendredi rek malade mënul xaar ma nga lay sant di la gërëm di la yàlla lu baax li nga fay yàlla na ko yàlla fay nit ñi mënuñ laa ñaanal mukk ba ñu fay la yow rek moo am sa fay yàlla na la yàlla fay Dakar boo social tamit yàlla na ne yàlla taxaw li baax li ngeen di def yàlla fay leen ko jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk yi yàlla nañ yàlla boole fayal ñun ñëpp ngërëm leeg cant képp dañ koy jël joxaat ko ki xam ne mooy PDG wu Dakar Buzz nga xam ne itteem yëpp mooy am fu mu fekk social am fu mu ko yóbbuwaat parce que euh, li may wax rek Dakar Buzz euh, tey am na fu mu fekk tey social. mais am na fu mu ko yóbbu loolu nag buñ ko mënee bonne volonté yi la waaye di ñaan yàlla gën leen a yokk di ñaanal sénégalais yi ne ci àll bi te amun ay kayit yàlla yombal seen i kayit yàlla jàppandil seen i mbir ndax da ci am ñoo xam sax dinañ tëdd ci lal hôpital di ma woo ne ma fadel dina la mën a def pour jàppale ñu nekk Sénégal benn ci suma yaay Mariama mbay mu ngi Sénégal mais dafa feebar keroog bi ma demee ba gis ko këram dama ne non kii moom ma jàppale ma laa di mën a ma damaa xam ne lu ma tawat tawat yàlla dénk na ma lu ma a jàppale ñu nekk Sénégal fan mu ñibbisi nag ma seeti ko muy loo xam ne tey nit ñaa ngi koy dund te wax ni ku mën lu baax defal ndax bis dana ñëw nga bëgg a def lu baax suñu borom du la ko mën loo te àdduna dara continué wul te kiy joxe mën na dem ba ëllëg mi ñaan ndimbal kenn xamul ñu ngi ñaan daal lépp lu waay mën ci lu baax nga def fa te xam ne yàlla gis na di gërëm képp ku may jàppale képp kuy jàppale Fadel Dakar Buzz ci social yi baa ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla dooleel la yàlla yokku la yàlla jàppale leen ndax lu ci waay def defaloo ko Fadel sa bopp nga ko defal di gërëm Aziz mi ni àndal nit ku baax nit koo xam ne tey la dama sa gisante parce que baax dafay feeñ ci nit ñi muy comporté ak yow bàyyi na yitteem ñëw ànd ak ñun jaamu ci yàlla maa ngi ñaan yàlla yàlla sàmm la musal la ci ay oto te defal la tawféex ak nag ak coono mais yéegoo ko ngir lu baax li ngay doxi euh, bi ma ko waxee Aziz man de dama am malade boo xamante ne sonn na trop léegi daal la maa bëggoon nga sa oto bi daal mu demal ma jëlil ma jëlil ma Fadel bi ma ko koy wax yaakaaru moo ne sax dina nangu hmm. mais après à ma grande surprise mu ne ma loolu defaluma la ko hmm. yàlla laa koy defal hmm, sama oto bi yàlla moom ma ko jox ma def ci lu baax mu téel ma ko ma def ci lu bon mu nangu ko donc lii laa ci mun ma jaamu ci yàlla moom tamit yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëg ko ci barke yonent bi. jërëjëf Amine Aziz loolu bàyyi lu mën lu baax defal ndax jaamu yàlla yomb na côté bu ne ba nga ko mënee rek di gërëmaat ki nga xam ne moo ñu jàppale rek di wax Dakar Buzz Social. jàppale ne ko fukki junni jox ko ko pour ñu jël malaat bi ñoom buñ ko mënee yóbbu hôpital ñu yóbbu ko xool lan la leen ci médecin yi di wax parce que kii nekk ko war a tëdd ci kër sonn na euh, mu ngi ak ay métit safe fait mois yoo xam ne naanul paracétamol bu cent franc parce que amu ko amu ko te xam na ne bu demee hôpital xam na la ko fay xaar bu ñuy analyse lañ koy defloo scanner ki amul cent franc yu mu jëndee paracétamol nag bu xalaatee la koy fekk hôpital la muy fekk hôpital du mën a dem day daal tëddaat ci kër gi Dakar ba fukki junni mu ko jox jox na ko ci turu bonne volonté yëpp tey ñaan mu barkeel su barkeel dina jur leneen euh, xale la 27 ans la mi ngi ay métit mi ngi ak ay coono di ñaan daal ku man lu baax nga def ko ci micro bi Fadel mi ngeen taam la gis la cadreur bi Lamine laa ci àndal moom it di ko gërëm Lamine sama cadreur maa ngi moom ba Gàmbi maa moom ba Casamance fu ma ko ne jógal mu jóg xamul guddi na xamul sonn na xamul dara liggéey rek moo ko ñor Lamine maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan équipe Dakar ba yëpp yàlla yokku leen jàppale leen di wax ne jàppale malade bi xam naa ne nag dafa sonn ba mënuma communiquer ak moom parce que euh, mi ay méthodes yoo xam ne du ma a waxtaan ak moom mais ñu jël ko ay xam ne mi ngi ak ay coono mi ngi ak ay méthodes yoo xam ne boo ko jegewul doo ko xam lu waaye mën ci lu baax def ko te xam ne àdduna dara continué te yow tey bis la suba bis la ku mën lu baax defoo nag ëllëg yaa yàlla yàlla ko yàlla jàppale te yëkkati ko massa nu mu tudd Awa Awa noo def jërëjëf mbokk yi jërëjëf kon ñu wàcc suñu kàddu fii rek tey ñaan yàlla may ko wér yàlla defal ko sutura ba mu ba mu jógaat ci kàttanu yàlla yàlla ko yàlla saabara ci barke yonent bi ma saf